Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakato yéen ñi koy suivre lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV vendredi le 4 février ci atum 2022 ñu xëy ñëw ak yéen ci journalu sunu lamb fekk di fay addition am solo soxor kale boy fay le 12 février ci atum 2022 def nañ seen face to face mercredi bi du kenn di face to face bu tàng jër waaye salba décortiqué sur les combats samedi ku diggante ki nga xam ne ni moom moo di Albury ak ki nga xam ne ni moom moo di di Brise de Mer la mu xam le moom moo di Albouri favori devant ki nga waaye ki xam ne nii moom moo di Boy Niang doomi déggoo ñëw na leeral ci digganteem ak ki xam ne nii moom moo di Balla Gaye de menace Balla Gaye de lu bëree bëri ci digganteem ak ki xam ne moom moo di Balla Gaye de ndax toogu fi di xaar benn yoon Balla Gaye de dem di wér ak Gris ba noppi doo la ñëw bëre moom boom Boy Niang deful loolu tey te du ko def suba bu fekkee ne Balla Gaye de dafay wër lu gën a facilité lu gën a yomb na dem jaayi glace mbaa sax mu dem bayi glace place ndax ku ne xam ne ni moom moo di Bombardier ci la te dafa daanu ñetti yoon kon boog na ñëw jël combat ma ki nga xam ni moom moo di Boy moom Balla Gaye 2 ginnaaw ba mu demee foofee nga ni moom moo di doon faju ci li nga ni moom moo feebar bu ko daloon moom Balla Gaye 2 retourné dellu si waaye ba tey journal sunu lamb bu la ci ñi nga xam ñoom ñoo di waa la mu xam ne moom moo di day waa ñoo moomee samedi bi diggante Dab Daan ak xam ne ni moom moo di Mor Kang Kang le 20 février ci atum 2022 journal bi xëy di ñu xamal ne dans réel xam ne ni fa la moom kan day di am ay ndam waaye ba tey journal suñu lamb di ñu xamal ne coalition en vie la face le 23 lay am waaye ba tey journal làmb xëy di ñu leeral ne day Adrien Senghor un million franc CFA un zone le treize février ci atum la boobu le bis Mbaye pare ki xam ne nii moom moo di nuwaaroog dix mille problème journalu sunu làmb xëy di ñu leeral ne foofu fee ca Ndiojoor daañu fa teg misu deux millions franc CFA waaye ba tey bu ñu demee fi nga xam ne nii moom moo di ca jalgati làmb ka ñu fay fekk moom moo di Gris Bordeaux la muy xamle moom moo di maa ngi fii di xaar Balla Gaye da man Bombardier ma maa ko làmb actualité te di ko suivre ci télévision bu bi nga xam ne moo di Bawal TV du ne kenn bu ma topp waaye ku joy dëpp la ko dalee Kees xombal bamba yal tundangal mag sew kabak laa kër daama kër sër jàllu ndul ak patar kër Ibra Yaasin sambe ngewel sambe kol dala ba daaru xafoor siyaare sëriñ ba dellu si waat Kajoor ak Bawal Siin Saalum Fuuta ak Jolof actualité làmb ak Bawal TV ndam lu sedd guy ci gaynde Sénégal yi leen yàlla